wa ala alihi wa sahbihi ajmain laqin lisaani wahlulan minhu lwaqad waj'alhu shakiran wa zakiran abad waj'al kalaami rashidan wa mursida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi leen di nuyu ci nuyoob lislaam bu tedd bu sell bu matale bu matale bu jotale boobu di leen ñaanal jàmmi suñu borom bi subhaanahu taala ak yërmandeem ak barkeem yal na wàcc seen kaw di leen jaajëfal bu baax uh, ci mboolem ñi nga xam ne ñooy topp jataay bi Euh, waaye bëgg ñëwaat ànd ak yéen comme ni ñu ko baaxoo defee rek ci ay bis bu jot di wéy ci tomb boo xam ne fi lañ taxawoon rek ci téereb sëriñ bi radiallahu anhu bi nga xam ne mooy nahju xadaa'il xaaj euh, fépp foo xam ne fa lañ ci taxaw rek suñu ñëwee foofa la ñuy soxewaat suñu bind euh, continuer ko nga xam ne ci bind bi weesu ñu ngi taxawoon fi sëriñ bi di waxe ne nañ xam ne gën nekkut ci aw askan wala ci yax bu rëy waaye ki gën dëgg mooy ki nga xam ne dafa am xam-xam am diine boole ñaar yépp am xam-xam ba pare di ko jëfee ngir xam-xam boobu mën a leeral li nga xam ne mooy diineem sëriñ bi tamit di soññe foofu bu baax ne sooy jàng na nga sax ca njàng ma waaye na ngay fexey di góorgóorlu te lépp loo xam ne mooy yokku xam-xam booba nga taxaw ca sakem kem kàttan ci foofu ñu yemoon fi ñuy continuer tey muy wax ne wa xaalifi nafsa na wuute ak bakkan fa inna nafsa naka bakkan am maaratun aji digle la bi ma la nga xam ne ya jurru dana wommat xabsa ak tëj sëriñ bi radiyallahu anhu nee na na ngay moytandiku na ak sa bakkan foo toll ndax bakkan day dafa bëgg am nooflaay bëgg lu neex ba euh, chaque jour wala saa bu ne day ommat nit ki di ko jëme ci loo xam ne yaraanga lay doon wala day ommat nit ki di ko jëme ci loo xam ne njariñam du ca te loolu lépp li koy waral mooy bànneexu bakkan daf cay am rek kon sëriñ bi nee na na ngay juuyoo ak sa bakkan ngir juuyoo ak sa bakkan ci ngay mën a toppe ndigali suñu borom bi subhanahu wa taala ndax bakkan dafa bëgg euh, lu neex ci bakkan bi waaye la cay neex doonul loo xam ne daanaka lu ca ëpp ëpp boo ko seetee euh, du loo xam ne day dëppoo ndigal li nga xam ne moom la suñu borom bi subhaanahu wa taala jox ndax bakkan dafa am ñetti xaaj ndax dañuy wax ne am na an nafsul ammaara bi suu am an nafsul lawaama am an nafsul mutma inna Euh, an nafsu al amara bi su mooy bakkan boo xam ne maanaam ak moy wala loo xam ne du jariñ boroom rek moom lay xëcc boroom di ko ci jëme an nafsul lawaama nag mooy bakkan boo xam ne euh, day yedd boroom bu nammee def dara mu koy yedd ngir mu bañ caa tàbbi bu fekkee ne ak mooy la waaye di ko jajji ngir muy fàttaliku borom bi subhaanahu wa taala bi nga xam ne uh, moom moo ko bind nafsul uh, lawaamu boobu nag moom mooy dem ba yóbbe nit ki mu dem ba am li nga xam ne mooy tudd an nafsul mutmainna mooy bakkan boo xam ne bu dal lay doon waaye teey lépp mu koy jëf di ko tekki ndigali suñu borom bi subhaanahu wa taala kon ñetti bakkan yooyu yépp an nafsul mutma inna moom mooy bi nga xam ne moo ci gën waaye nag la lay may nafsul mutma inna mooy soo jaaree ci nafsul amma ammaara bi suu nga euh, ginnaawal ko fexe wut li nga xam ne mooy nafsul lawaama nafsul lawaama nit ki su ci yàggee dana dem ba yóbbe ko ci li nga xam ne mooy nafsul mutma inna sëriñ bi ne wax xallili ruqaada na ak yandoor maanaam na nga niiwal ay nelaw faarixi na nga tàqalikoo alkasala tayyal wa xallili te nga niiwal a raaxata am nooflaay xassiri na nga al amala ay mébét sëriñ bi radiyallahu anhu nee na na niiwal ak ay nelaw maanaam bul def rekk di nelaw ndax nelaw du jural nit ki njariñ maanaam nelaw yu bari doonut loo xam ne day jural nit ki njariñ waaye nelaw yu bari day tax li nga xam ne moom nga war a def rek euh, lu ci bëree bëri rëcc la euh, li nga xam ne moom nga war a jëfe lu ci bëree bëri raw la te loolu euh, nelaw yu bari rek moo koy waral ndax nit ki suy nelaw dina nelaw ba def war a def dara bu ko defee nelaw ya moo koy tënk ba du ko mën a def kon nit ki nay nay nay fexey di niiwal ay nelaw bu baax a baax donte ne nelaw mënta ñàkk waaye na nga cey def kem aajo rek waaye bul def foo tollu di nelaw ndax loolu de jural nit ki ak tayel te sëriñ bi radiyallahu anhu nee na nañu bàyyi nelaw waaye nañu tàqale ko ak tayel te lay tax nit ki tàqale ko ak tàyyeel mooy euh, niiwal ay nelaw dana ca dana ca bokk ne nay na ngeen niiwal am nooflaay bëgg am nooflaay fu ngeen toll di noppalu rek ne na loolu na ngeen ko niiwal bu baax a baax a baax te ngeen di gàttal seeni mébét euh, di gàttal seeni bëgg-bëgg euh, di doyloo li nga xam ne moom la leen suñu borom bi subhanahu wa taala jox kon loolu nit ki su fekkee ne yooyu lay dundu bu boobaa loolu mën na koo mën na koo jural njariñ mën na ko jural ak doylu waaye mën naa tax Euh, muy dellu ci suñu borom bi subhaanahu wa taala bu baax a baax a baax a baax mu ne waalam na nga xam bi an na man naka ka nga xam ne aba bañ na at taalluma xamlu waxta sibaahu ci waxtow ndawam sa yulaaq xel set na dajeeg nadamaan ak réccu na xam ne képp koo xam ne day bañ na ne du jàng ci waxtow ndawam ba mu ca tollee war a jàng bañ na ne du jàng na xam ne lu jamono yàgg-yàgg ak lu àdduna yàgg-yàgg day bis dana ñëw mu toog réccu ñàkk a jàng gi nga xam ne moom la ñàkkoon a jàng kon jàng mbir la mu ama am solo uh, kenn waru koo ginnaawal kenn waru koo soofental waaye képp koo xam ne danga cee toll da nga ko war a def ndax jàpp nañ ne sax jàng nit du ko weesu waaye am na at yoo xam ne nit ki su moom mënalul boppam dara lu jàng tey lu mu fa def lu dul jàng du safe kon boo fa tollee na nga na nga jàng moo tax sëriñ bi radiyallahu anhu di wax ci euh, beneen téere ne wa man nahaakum ani taallumi fa nahyuhu ila dalaali yantami képp koo xam ne day dox na seen diggante jàng képp koo xam ne teral na leen ngeen jàng day na ngeen xam ne tere googee mu leen tere de ci ak réer rek la leen jëme waaye jëmew leen ci lenn loo xam ne lu baax la waxaat ba tey ne wa man nahaakum an taallumi fa huwa xalifatu lainil mujrimi képp koo xam ne day daf leen a tere uh, am njàng dox seen diggante ak ngeen sàkku xam-xam dox seen diggante ak ngeen uh, uh, wut xam-xam ne koko kooku de na ngeen xam ne moom mooy mooy représenté iblis ci kaw suuf waaye mooy ki nga xam ne mooy ndawul iblis li nga xam ne mooy dox seen diggante ak Euh, xam-xam waaye moo leen di euh, tàyyelloo ba li nga xam ne mooy sàkku xam-xam du leen ñor waaye du ngeen ko jox benn gëdd moo tax mu ne is ngir kullu man képp koo xam ne lam yata baadar gaawun tuut lil ulumi jëm ci sàkku xam-xam ma tafarruxin ànd ak euh, ak am nooflaay maanaam ànd ak ay loxoy kese ànd ak bëgg ab temps boo xam ne bu bari la du liggéey laxaa ñeel na ko xablal xumóomi la njëkk yitte ya képp koo xam ne day gaawewut ci wuti xam-xam tax mu ne is kullu man képp koo xam ne lam yatabaadar gaawuntuwut lil ulumi jëm ci sàkku xam-xam ma tafarruqin ànd loxoy kese laxaa ñeel na ko xablal xumóomi la njëkk euh, yitte ya fala yanaalu du am xaaliban la gën a bari matluba la mo la nga xam ne moom lay sàkku min ca ca moom walay sa yaxtawi tey du làq marxuba la nga xam ne moom lay xemmem ne képp koo xam ne day euh, gaawuntuwut ci waxtu wa nga xam ne ca la toll ci ak ndawam gaawantuwut ci waxtu wa nga xam ne ca la amee ak dëgg-dëgg bala koo yitte soxol soxal bala ko bëgg-bëgg ya soxol bala koo ak njaboota soxol bala koo àdduna jat mu gaawantu wuti xam-xam gaawantu sàkku ji xam-xam nee na kooku day na xam ne euh, la gën a bari day la nga xam ne mooy mébétam du ko am te it la nga xam ne moom lay sàkku dëgg-dëgg bala caa jot mën naa sonn wala mën na ca saxa bañ a jot ngir day bàyyi ba euh, jamono ja nga xam ne moom la waroon a sàkku xam-xam wees euh, bu boobaa njaboot ak lépp tànc ko àdduna tànc ko ci benn Euh, roq wala ci benn puquus su ko defee mu bëgg a boole loolu lépp te bu boobaa loola day day day gànt dootul mën a nekk kon nit ki euh, li nga xam ne moom la war a def tey bu mu ko xaare suba waaye li mu war a def suba bu mu ko xaare ginnaaw suba euh, fépp foo toll rek ci jamono ak jamono joo toll rek am na loo fa war a def bu ko xaare jeneen jamono ngir bu jeneen jamono ñëwee Euh, ñaari jamono yi la nga la la weesu da koy boole ak jamono ji te bu boobaa day gën a métti ci yow moo tax mu ne is ngir madaxu tàgg nan taalluma sigaari jàngum ndaw maanaam sàkku xam-xamu ndaw bi kaw ni yii ci ak nekkam ka naq si niki rëdd fil ci aw xeer nee na euh, ndaw day koo xam ne xale la tàgg nan am am am njàngam bu baax a baax maanaam sopp nan am njàngam bëgg nan am njàngam bu baax a baax lan moo tax ngir xale euh, fi muy toll ci buntu àdduna ak ni nga xam ne noonu la ko dara soxalagulut euh, bu boobaa am xelam day daal di féex am xelam day daal di yaatu amul lenn loo xam ne moo koy occupé kon bu tàmbalee di jàng li nga xam ne moo moom lay jàng day sax ci aw boppam niki tey bu fekkoon ne da gis xeer euh, doju tooy xipp nga rëdd ca na rëdd wa di saxe ca doj wa nee na noonu la am njàngum xale di saxe ci boppub xale ngir lan ngir ci jamono jooja amul lenn loo xam ne moo soxal xale bi wala mu yitteel ko loo xam ne moo mën a dox digganteem ak akum njàng wala moo mën a euh, occupé am xelam ba li nga xam ne moom la bëgg a euh, xam wala li nga xam ne moom la bëgg a ci boppam mu mën koo saxal kon loolu li muy tegtale mooy day tegtale ne njàngum xale am na solo lool ngir ne lépp loo xam ne moom nga ko jàngal day sax ci bopp bi ndax bu boobaa duggagut ci àdduna maanaam àdduna fëkkagu ko te it yenn yu koy tax muy xelaat wala yu demee noonu euh, nekkul ci boppam bu boobaa lépp loo xam ne moom lañ ko jàngal day mën a sax ci boppam mu nuroole ko ak xeer wu tooy wala doj wu tooy xépp woo xam ne rëddën nga ci boo ci rëddee na ca rëdd wa di saxe ne na noonu la am njàng di saxe ci boppu xale mu ne wa shabahu nuróole nan taallumal kibaari njàngum mag bil kat bi ci rëdd faw xalmaa i ci am ndox fil asaari ca jeexit ya nee li nga xam ne mooy njàngum mag nag moom ñi ngi ko nuróole ak mu mel ni nit ku jëlan loxoom teg ko ci am ndox di rëdd saa boo rëddee foo weesu rek rëdd wa fu sa baaram weesu rek dootoo gis fa nga rëddan ne na njàngum mag noonu la mel li tax njàngum mag mel noonu mooy mag ay soxla daf koy dab lu bëree bëri àdduna euh, jàtt ko mu am ay yitte yu bëree bëri loolaa tax am xelam duutul mën a toog bay mën a euh, euh, jàng wala am xelam duutul mën a toog bay mën a nekk ci am xelam di nekk ci jàng fu mu toll léegi nag loolu moo tax mu nuróole ne kon njàngum mag moo rëdd ci am ndox daanaka soréew ñu ngir loo boo rëddee ci am ndox loo romb mu faraat ndox mi faraat ko waaye njàngum mag noonu la demee lu mu romb day mel ni xel mi da koy fëttaat ndax e, jafe-jafe yi nga xam ne moom lay jànkonteel ci e, li nga xam ne mooy yittey àdduna kon foofu liñ fi déggee mooy dañ fiy dégg ne xale bi nga xam ne moo toll ci waxtu jàng bu mu ko sàggane mukk waaye na jàng ci anam ba nga xam ne moo gën waaye bu mu bàyyi ba weesu ko doo ko di dabaatal wala yu uh, demee noonu moo tax mu ne yaani li mu jublu annahu naka moom ya muruka dina la digal bi an la tatruka ci ngay bañ a bàyyi ataalluma xamlu maanaam sàkku xam-xam yawman ci benn bis minal ayaami ci bis yi fa innal ilma naka xam-xam de xayaatul xalbi mooy dundu xol wa jalaaul ama te it mooy wuññi ngumba xol wa nuuru nafsi te it mooy leeru bakkan nee na li mu bëgg a wax foofu day nee mi ngi lay digal nga bañ a bàyyi mukk xamlu nga bañ a bàyyi mukk sàkku xam-xam ci benn bis ndax sàkku xam-xam de nena mooy li nga xam ne mooy dundal ab xol waaye na mooy li nga xam ne mooy wuññi ak ci ab xol waaye mooy li nga xam ne mooy leeral bakkan ba mu xam fi nga xam ne foofu la war a teg tànkam ndax ki nga xam ne amul xam-xam bëgg a jaamu yàlla du xam naka la war a jaamoo yàlla waaye ki nga xam ne amul xam bëgg a topp suñu borom subhaanahu wa taala xam nan la koy toppee kon euh, ngir saw yoon mën a leer ngir nga xam fi ngay teg sa tànk faaw da ngay am ab xam-xam boo xam ne moo lay gindi. moo lay teg ci aw yoon te loolu mënta nekk lu dul ne nit ki dafa euh, sàkku xam-xam waaye dafa sonn ngir am li nga xam ne moo de ab xam-xam ba mu mën koo leeralal yoon wi nga xam ne foofu lay jaar kon loolu li muy tegtale mooy am solo goo xam ne ab xam-xam am na ko solo waaye it waxtu wa nga xam ne ci la ko nit war a sàkkoo mu sàkkoo ko ca waaye mu bañ a euh, sàggan ba waxtu wa nga xam ne ci la ko war a mu raw doonte ne ci waxtu yëpp mën nañ ko cee sàkkoo waaye nag ca waxtu ndaw ca la gën a yelle ndax ca lay gën a saxe ci boppum nit ki waaye su nit ki bàyyee ba toll ci jenn jamono ji bëgg koo sàkk bu boobaa mën na koo andil ay jafe-jafe ngir euh, yitte yi nga xam ne mooy daje ci boppam ci jamono jooju mooy tax mu mën koo euh, euh, am njàngam di xaw a jafe bu baax a baax a baax kon xam-xam am na solo bu baax a baax nit ki Euh, di ko sàkkoo fu mu toll waaye am na solo bu baax a baax nit ki di ci nàmpatal ak njabootam waaye di leen ci xiir rawatina li nga xam ne mooy xam-xamu diine bi nga xam ne euh, su jagul rek euh, daanaka nit ki nit ki pour mu yar ak njabootam xaw des bu baax a baax ndax nit ki bu xam-xamu diine jiitoo ci moom rek mu xam li nga xam ne moom la suñu borom bi subhanahu di digle ak li muy tere boobaa loolu dina ko may mu xam naka lay euh, jaflante ak nit ñi waaye lan moo war diggante ak borom subhanahu wa mu koy jëfe kem kàttan ala sahabati wa saadati kullihim ridwanu rabbil aradi was samawati wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala ala sahabati wa saadati